contentement man comme ni ma koy waxee tout le temps rek agents ñooy samay force monsieur maire xam na si dara tout le temps dama leen di défendre même si temps grève bi dama doon am sax stress moo tax jour bi mu jeexee monsieur le maire man la njëkk a woo mu félicité ma donc dama doon ñëw di liggéey si mais dañ ma doon manqué quoi en fait dama doon ñëw tout le temps monsieur le maire er nañ def nii pour jàmm ñëwaat parce que comme ni ma koy waxee rek lu dul jàmm jàmm moo ko gën donc ñoom bu ñun ñuy liggéey si tamit mun nañ bañ am résultat ñun bu ñu ñëwee ñoom ñoom bu ñu ñëwee ñun ñëwuñu tamit mun nañ bañ am résultat donc ñoom ñooy samay force te dama leen di défendre chaque jour di leen remercier tamit ci teewaay bi ñu fi teew tey ma am te trop ñëw bokk ak ñoom ndogu bi tout ça ambiance bi man moom samay xarit lañ comme monsieur le maire tamit à ah tout dama leen koy wax keroog maa am nañu ma ko doon wax bureau monsieur le soo gisee muy dem mën nga ko dëkkal feneen mën nga ko mën nga foog ne am na nu mu mel mais en réalité soo ko jegee da ngay xam ne c'est une personne boo xamante ni dafa dafa sociable et puis dafa dafa dafa ubbeeku te te ngeen di dem di ngeen ci xam dara donc monsieur le maire Serigne Mboup tamit noonu la mel ñu koy remercier au passage ci confiance bu mu am ci ñun parce que tamit yombul madame la maire noonu la defoon dafa amoon ci ñun confiance moom mu ñëw renouveler confiance boobu parce que mënoon na ni ñun ay jigéen lañ donc dafa ñëw gën ñu dooleel ñu ko ciy sant di ko ci gërëm di sant encore une fois monsieur le maire di leen sant yéen tamit di di ñaan daal ñun ñëpp ñu jàppoo li fi amoon jàll na xol yi kii woon na euh, tendroon et tout ça neer yi jugoon na mais jàll na man je pense que dañ ko war a pàtte euh, mu jëm suñu ginnaaw ñu liggéey parce que ñun en fait mairie bi yëpp ah liggéey la ñu xam mais rawatina nag euh, service technique. Mm-hmm. ñun dañu xam nawet bi éclairage bi mbalit mi yëpp ñun ñoo fi nekk. donc à chaque fois ñun dañu war a nekk benn ñu jàppante te boo leen gisee man lool chaque fois loolu laay doxee su ma ñëwee damay wàccee sama bopp ba tolloog yéen mënoon naa ñëw mel neneen. mais bu ma ko defee rek liggéey bi du dem donc dama ñëw wàccee sama bopp à chaque fois man yéenay samay xarit loolu laay wax chaque jour donc ñu gën a jàppalante jàppal jàppale maire bi ñu liggéey ñu am résultat parce que résultat mooy suñu résultat di sant aussi ma jigéen <laughs> sama xulóowaal moom dañuy xeex sax parfois si terrain bi jeen di atte fii après <laughs> mook jeen ñu xeex ma atte donc loolu yëpp si si si si dans bien faire donc jàmm ñëw ñu liggéey si jàmm ñu am résultat vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm